Euh, ndax déglu nga information président tey. waaw déglu naa ko waaw bon déglu naa bu baax li mu wax bon mën nag lenn laa am lu may wax président li mu wax nii d'après man dafa am benn wax mu waxoon dafa waxoon mel ni màndaa boo xam ne moom lay jël indi xam ne moom fa lay yem mais dem ba ci biir wax waxeet. waaw mais loolu noonu bu ko waxee moom. mën na wàññi mën na dem sept ans comment après sept ans bu ko neexee mu dellu woon foo ne mu dem def ko cinq ans comme ni ko waxee woon kon ñu ngi ko falee ci mandat sept ans sept ans. loolu la def te moom la ñëpp gis ni SAE nii li mu njëkkoon wax nag moom ne mandat boobu moom loolu lay loolu lay ñëw def fu mu mat mais deful loolu dafa dem ba ci biir wax waxee changé li mu waxoon man nag leen la am may wax quoi. nit nag bu la leeral na yow da ngay wax loo xamante ne yow ah da dem ba ci biir ah te doo ko def balaa caag xoolal nga bañ koo wax parce que nit moom defe naa say kàddu ah lan lay jàppee say kaddu ah lan lay bàyyee. lenn rek moom a ñor man chauffeur laa dëgg la te benn instant yi tey tey ñun amuñ leen lu dul suñu réew. moom nag moom mooy président yàlla moo ko fal ginnaaw ñun yàlla moo ko fal xëy na ne loolu la xalaat ne moom moo war a mën a jëmale suñu réew suñu kanam mais kon loolu na ne sept ans yi a a jëmale suñu réew suñu baax na kon nañ jàpp ne sept ans bu la leera ne lii noonu li nga li mu njëkkee wax ah du ko def mënoon na teel a wax ne kat man lii laay def xam nga wala mun ne man sept ans yi su ma su jeexee damay renouveler waat lii laay def mais da bëcc bi di wax loo xam ne moo fi indi wax ji ah parce que tamit bu nit ñuy nekkee fii di wax na président li waxoon def ko dafa dem ba ci biir bëgg a changé ah moom la rek moom lépp moom la kon tamit li ñu ko waxal rek moom moo tooñ boppam. yàlla moom mooy def nag moom deful ñun defuñ yàlla mooy def. parce que nit ku nekk li ko yàlla teg rek moom moo gën ci moom ñu ngi faayit ñu ngi dóor suñu waar ñun ay safoor lañ ngi toog liggéeyuñu dëkk bi métti na des fois ñu karang-karang yi des fois nga reba tas mais xam nga mënul ñàkk ndax jàmm bu nekk tey tey ji nii li suñ borom bind sa jëf faa nga dund ko door ko mën a am waaw dëkk bi moom wax dëgg yàlla métti na métti boo xamante ne ah kuñ ko waxal xam nga ko parce que gars yi crise boo xam ne métti na trop waaw déglu nañ ko mais boo xoolee euh, sénégalais yi niñ ko gisee tamit day confirmer rek ne Euh, Macky Sall doomu Ablaye Wade la te ñun président boo xam ne dafa am conviction ci li muy liggéey ñun loolu la ñu wër parce que dañoo nekk en retard ci lépp ci par ci ci yëpp secteur ah. te liggéey amatul xale yi amatuñ fu ñu jëm école yi grève yi bari na courant yaa ngi coupé kenn xamatul fu nit toogee xaalis amatul ci dëkk bi koñ boo dem bopp koñ ba ndambe lañ fay jaay ak ay brochette kon sénégalais yi nañ leen jéem a xoolaat nu ñuy jéem a génnee suqali suñu bopp pour jéem a liggéey pour jéem a jëm ci kanam wasalaam.